يا bisimilah barke borom Touba kon ñu gën a santaat sëñ Touba bu baax a baax sant Cheikh Khadim sant Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi suñu kanam ba li ñu yéene liggéey seewul xadim ci maamam suñu borom defal ko lu koy jortam waa xam nga ramadan bi moom euh, dafay nekk dafa nekk événement boo xam ne daanaka lu international la ba tax na direction générale bu Hizbut Tarqiyyah bi nga xam ni moom la sëñ Mountakha woo teg ko ci loxoy sëñ su Diop ngir mu di ko taxawu saa su ne su desee ay weer da koy organiser li nga xam ni yëpp ci bépp fànn loolu nag moo tax fi mu toll nii ñu ngi ci wàllu dernier réglage yi ci wàllu installation yi nga xam ni danañ fexe ba euh, mbooleem suñu mbokku taalibe yi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu mën a dund en direct événement bi yëpp en intégralité loolu nag direction générale ci ci njiital Serigne Youssou Diop dote na joxe na ay moyens yoo xam ni fépp fu nit nekk ci àdduna bi bu soobee Seexul Xadim événement bi dara du la ci rëcc loolu nag comme ni ñu ko àndee woon daaw nga xam ni suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo bokk di liggéeyal Serigne Touba am na ci benn plateforme bu ñu ànd boo xam ni di tàmbale ci màggal mbooleem événement boo xam ne dañ koy def ci turu xalifa général de Mourides ñun ñoo koy ànd loolu ñoom tam kenn desul buñ tàmbalee installation yi. ak organisation ak ñoo kenn desul ndax rek ndigal li nga xam ne mun Muntaxa joxe na ko fépp fu waay mën a nekk loolu mën a agsi ci yow loolu danañ organiser noo xam ne eh, mbooleem ñi nga xam ne ay chaîne de télévision yi lañ wala ay ay plateforme lañ yor nekk ci YouTube wala beneen application boo xam ne dañ ciy mën a diffuser ñu jox leen benn lien neutre boo xam ne ñoom dañ cey dañ cey mën a diffuser jaar ci seen plateforme leneen yi nga xam ne ay ñoom tam naka noonu nga xam ne daal képp koo xam ne soxla nga signal bu neutre boo xam ne en full HD lay doon mu soobee Sëñ Touba direction générale mat teg na ay matuwaay yoo xam ne dina mën a agsi ci mboolem mbokk taalibe yi loolu nag dañ koy àndal comme naturellement ni ñu ko daan àndee rek ak groupe GMT bi nga xam ne ña ngi leen di eh, eh, eh, nuyuwaat di leen sargalaat di leen encouragé waat ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko loolu yaakaar naa ne mooy dispositif bi ngeen xam ne gis ngeen ko fii Eh, boo duggee si eh, ci biir saal bi ak ci biti maanaam benn moyen boo xam ne daal benn eh, liggéey boo xam ne daal desal nañ ko gën a amul. ma foofu moom li nga xam ne moom lañ ci doon dolli rek mooy direction générale bu Tarqiyyah ci turu sëñ Youssou jël la matukaay yëpp yoo xam ne moo war ngir fépp waaye murit mën a nekk évétement bi nga mën ko vivre en direct. loolu moom tam tax na dina mën a produire benn signal neutre boo xam ni en full HD képp koo xam ne yor nga télévision wala nga yor plateforme di ci diviser loolu danga ko mën a jottale say mbokki taalibe ak fu fi mën a nekk. kon loolu mooy matukaay yi nga xam ne direction générale jël na ko ngir ànd ko ak mboolem tak mboolem yi nga xam ne ñoo nag si biir ñu si biir ci biir adduna bi ak fu fi mën a nekk. ñu profité waale ci occasion bi eh, remercier waale suñu partenaires yi nga xam ne saa su ne su lu amee muy opérateur yi. mu nekk sonateel ak euh, Free danañ ñu wàcceel ay lignes yoo xam ne euh, liggéey bi nga xam ne Sëñ Muntaxa dañu ko dénk ñu ciy liggéey fépp fu ma nit nekk ci mën a nekk ci àdduna bi dina liggéey bi doon na agsi loolu nag doon na jafe suñ ko amul woon waaye nag euh, occasion la boo xam ne dana tax ñu mën leen cee sant sant waa Sonatel vraiment liggéey bu am solo boo xam ne depuis bi ñu ko tàmbalee ba léegi chaque fois ñu ñu ñu événement bi ñëw rek matukaay yëpp den ko jël ngir mën a jàppale ba liggéey mën a aw joon euh, moment la boo xam ne daal vraiment ñu ngi sant leen leen sant di leen gërëm muy opérateur yi nga xam ne yëpp saa su ne su événement bu toll nii amee ma wala may wala muy événement boo xam ne yoonu murit la waaye Hizbut Tarqiyyah lañ ko dénk saa su su amee moom dañu gis ni ñoom ñu ngi suñu gannaaw dañuy jàppale ba liñ ci bëgg mu àgg foo euh, àgg ci mbooleem mbokk taalibe loolu jàppande ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf وزامنا كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم barke Seexul Xadiim jërëjëf Sëriñ Tuubaa ñoo ngi leen di siyaare baax di am mbégte bu baax a baax a baax ci laaj yi ñuy laaj euh, fii nag moom dañuy wax alhamdulilahi rabbi alamin bi ñu fekkee waatee weeru koor gi ba mën koo taxaw ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te euh, ginnaaw bi mu joxee suñu jëwriñ ji suñu yusu euh, yeesalaat ndigal li rek ci weeru koor gi nañ ko daan defee ñu dunde laat ko boobaa tamit rek direction générale bi su tarxee dafa woote Euh, commune euh, secteur bi nga xam ne mooy wàllu sonorisation di taxaw wàllu njàng mi ci Hizbut-Tarqiyyah ñu bokk ci kenn koo xam ne fa lañ nekk ak personnel bi ñu ko àndal dañuy daal def ndaje nag def benn plan d'action pour waajal liggéey bi ni ñu koy defee liggéey bi nag euh, ni ñu koy defee weesuwul rek saa bu desee une semaine ñu déployer matériel bi ñu am yëpp indi ko fii ci barab bi ngir mën a tàmbalee def installation yi installation yi nag am na ñetti xeet am na intérieur salle bi mooy fi nga xam ne moom la sëñ bi nekk kuréel gi di fi nekk nga xam ne fi la ñuy teg micro yi pour kuréel gi war a jàng am na extérieur muy ëtt bi am na mbaar mu mag moo xam ne ñi bëgg a durus dinañ durus foofu tamit am na sonorisation waaye am na installation externe nag mooy haut-parleur yi nga xam ne mooy longue portée yi nga xam ne moo wër kër gi nga xam ne fépp waay jub à cent mètres ci kër gi di nga dégg ay xasida yoo xam ne moo lay accompagne ba dugg ci biir loolu nag yàlla dogal na depuis biñ ko tàmbalee ak tey ji toll ci juróom benn fan